يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم mbokki جلدي yi مسلو bu جلدي سيدنا محمد cheytaane julli البكر ñaan yàlla yàlla ñu boole jéggal nangul ñu suñu jaamu yàlla di ñuy nuyu mbooloo fi teew yépp di ko topp di ko teg ci loxo imaam raati mu jàllale ko ci mboolam aima yi koy jàppale ci liggéey bi waaye ci mboolam ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci organisation jumaa ji waaye mboolam ñi nga xam ne ñooy ñëw di dundal jumaa bi ci seen julli ak seen i asgar na yàlla nangu ñëpp ah, bu ko defee daanaka tey suñu ñëw bii nga xam ni kër azaka la ñoo leen seet si tey mu doon yi ñëw yëgal ay bokk jullit yoo xam ne dangeen ngeen bokk mbir ngeen war ci bokk yëg-yëg ànd ci bokk ci taxawaay loolu moo sabab suñ ñëw tey jii ci yéen xëy na maanaam bayaan bi ñuy def prétexte la waaye li ci ëpp solo mooy yëgal leen li gë li tax ñu jóg li tax ñu jóg mooy Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te تنال دمو نال دنال الإسلام يالله كي يالله ما يمونه كي يقلي دفعي جسني أزكى منام سابو يالله تدي جلي تدو أزكى تيوتن تدو بريك القرآن yo xamne kon ni julli avec importance la koy yalla yi lekkeli kon lu am solo la kon bëgg nañu bayyi ko xel te azaka day loo xam ni maanaam dafa lëkkaloog dooley lislaam benn boroom xam-xam bu ñuy wax imam Dame Ndiaye day wax lu am solo dani société boo dem fekk fa ñetti catégorie di nga fa fekk ku koo xam ni bu xëyee ci tawfiqullah bu demee liggéeyi dina am lu mu loo xam ni bu ko defee ci poosam bu delloo këram dina faj aajoy boppam faj aajoy njabootam dese dara mu ni am koo xam ni bu xëyee moom bu demee wuti ba ngoon jot mu dellu këram bu làmbee poosam dina ja fekk faj soxlaam mais ca yem képp mu ni am koo xam ne bu demee wuti walla mënta wuti bu demee ba ñibbisi bu làmbee poosam du ca fekk dara mu ni ñetti ñi nag société boo dem gis leen fa te ñoom ñëpp nag yàllaa leen teg li ñu nekki kon yàlla mi leen teg li ñu nekki moo jug pour faj néew doole gi nga xam ne ki yorul dara moom la nekki loolu bokk na ci li sabab azaka kon azaka maanaam lu ñuy jële ci ñi woomal ci askan bi la di ko delloo ci ñi yorul dara ci askan bi la euh, ci xeetu lislaam kon azaka mu nekk loo xam ni lislaam bi mu euh, yonent bi faatoo li ñu njëkk a li ñu njëkk a mooy azaka parce que dañu xam ni azaka mooy doole yi lislaam mooy doole société lislaam sëriñ mu nag gis njariñu azaka boobu ni mu mën a defaree koom ni mu mën a defare société ni mu mën a saxal jàmm ni mu mën a dooleeli lislaam importance bi mu am ci lislaam ak sàggane gi ñu ko sàggane mu daal tabax lu ñuy wax kër azaka yi ndax azaka euh, dañ ko war a organisé parce que yàlla ñi mu tudd ci ñoo ko yeyoo da cee boole wal aamilina alayha ña cay liggéey kon loolu azaka dafa war a doon benn institution bu koy lijjanti yàlla programme ña cay liggéey sax dañ leen ca war a fay kon moom mu gis ni kon xëy na di ko wax te defoo benn expérience mën naa bañ a jur njariñ lañ ci xaar mu expérimenté ko ci fa mu yilif muy Tuubaa doxal ko ba mu commencé dox ba indi njariñ mu sol ni kon léegi nak segam asaka mbirum islam la du mbirum tariqa nañ fexe ba mu yaat ba ñëpp man ci jot motax mu joxe ndigal ni nañ fexe ba région bu nek ñu samp fu kër azaka yi bu ko defé muy saytu azaka yi diko mëna dajale diko mëna jox seen bop lolu nak day jaadu maanaam surtout marché parce que gis nga yaxam ki nga xam ni mooy ñun lii ñuy def dama jàpp ni borom alal yi lañ koy defal ndax ñoom ñoo waroon a organiser parce que azaka dafa am ñett ñu ko séq yàlla mi ko santaane organise ko waaw wax ni ñu koy génnee lu ñuy génnee kañ lañ koy génne kañ lañ koy jox lépp mu jëntil ko boppam ak ki nga xamante ni mooy ki ko ki ki ki ko yàlla sas teg ko ci loosam pour mu war ko génne ak ki nga xam ne buñ ko génnee moo ko war a jëriñoo ñett ñooñu dañu am solo trop moo tax ñun nag suñu waxtaan mi ngi ci ñi ko war a jëriñoo juróom-ñett yaa yàlla tudd ni ñii ñoo ko moom kon manam azaka li ñu def ñun ñi ñi am alal lañ ko defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena inna allah farada ala agniyai almuslimina fi amwalihim bi qadri alladi yasaau fuqaraahum neena yàlla def na ci alal ñu woomal lu doy seuk pour entretenir maanaam coono ñi néew doole mu ni lan yajhad alfuqara ida jaau aw araw illa bi ma yasnau agniyaahum nee ñi néew doole ci société bi nee na saa ñu xiifee wala ñu sonn pour mën a ji faju walla ñu sonn pour mën a am fu ñu dëkk wala mën a am lu ñu sol nee na faa bu leen dale nee na loolu nañu xam ni ñi womal ñoo téy seen wàll waaw moo tax azaka buñ ko doon joxe ni mu waree kon maanaam ñàkk dina dina dina ku lool mbaa mu dëkk kon mu ni alaa mu ni alaa inna allah hop yàlla tëkku ni na ngeen xam ni yàlla yuxaasibuhum xisaaban shadidan wa yuadibuhum adaban alima nee na kon boroom xam-xam yi nañu def très attention nañu moytu nee na bu ëllëgee ci loolu yàlla dina leen ci régler régler bu garaaw fu ngeen nekkoon ba diw xiif foo nekkoon ba diw rafle foo nekkoon ba diw amul fu mu dëkk foo nekkoon ba diw ba diw ba diw nee na loolu yàlla dina ci régler régler bu métti ëllëg borom alal kon ñun lii ñuy def yaakaar na borom alal lañ koy defee kon ñu ciy woo képp koo xam ne yàlla may na la nga toll fo wara génne azaka nga xamni li ci nga bok nga ñëw parce que ñi yor alal ño wara yor li ñun dañ leen di dimbale rek kon ñi yor alal ño mom li ci bopam kon ñu ngi leen téwo kon marché bi képp ko xam ne nga ni toll nga fo wara génne azaka xamal ni yow li ya ko mom ñëwal nek ci biir di ci dox di ci wax ndax damay wax ni euh ñaara mëna am moy ñi yor alal benn ñu xam importance su azaka yëg ni ñun moom ñoom lañ koy doxal wala ñu bañ ñoo wóolu waaw ah, ñaar yooyu mën a am te su ngeen ñu wóoluwul it ñëw ànd ak ñun yor ko waaw waaye lii moom fokk mu dox te pour mu dox it ñi yor alal ñoo ko mën a doxal loolu nag ñu bàyyi xel di woo képp koo xam ni toll na foo mën a génne azaka ñu ngi la ubbil bunt yi bis ñi ki tey manam bo ñëwé ñu boole la ci biir mbolo bi wax la condition yi mi doxé yëpp nga xam ni jullit yëpp ñoko bok kon loolu ñu ci bàyyi xel yëpp kon azaka bu ñu ñëwé ci ñi ko yeyo inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibn sabil yàlla nee na ñii ñoo moom azaka kon azaka yàlla moo ko wax ñi ko moom moo ko waxal boppam bàyyi ko képp nee na azaka fuqaraa yi ñoo ko moom kan mooy faqiir boroom xam-xam yi ñu ngi wute ci faqiir ak miskin ku gën a ñàkk ñi nee nañ faqiir mooy ki ñàkk te rusalaay ñi nee nañ faqiir mooy ki ñàkk amul dara lu ci mën ci doon daal faqir moom ku ñàkk la miskin fu xaay léeg mën na am dara mais la mu yor doyu ko mën na doon salarié mën na doon kuy liggéey mais la mu yor comme li ma ko waxoon am na ñoo xam ne bu ñu xëyee dem wuti bu ñu dikkee la yor du faj seen soxla mbaa bu ko fajee soxla sa du mat waaw kooku day bokk ci masaki bi kooku yi bokk na ci ñu yàlla jox azal ñi nga xam ne aussi moom man ñi ngay gis ci liggéey ñiy dox di ko dajale loolu ba di ko séddale seen boroom liggéey boobu ñuy liggéey war nañ fay ñi nga xamante ni maanaam ñoo nekk ci buumug jaam buumug jaam ñi ci nekk jamono ba lislaam jaam di am ku nekk ci buumug jaam bëgg a jot sa bopp te amuloo jote sa bopp war nañ la jox ci azaka ji nga dem jote sa bopp waaye ki nga xam ni dafa amee bor bor boo xamante ni ci lu dagan la ko lebe fay jot muy gor amul lu mu fay bu fi azaka ji nekkee nañ ko jox mu dem fayi borom parce que yonent bi nee na maanaam bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy ginnaaw farata yi la yàlla sant mooy fekk ku xiif nga fexe ba jox ko mu lekk ñaareel bi fekk ku jaaxle nga teg ji jaaxle waaw gis nga dox ci soxla jullit yonent bi nee na moo ëpp tuyaaba dem ci jumaa sayyiduna muhammad def ta def fa i'tikaaf weeru yàlla weeru yàlla ba jang cay am nee na faj aajo benn jullit maanaam moo ko ëpp doole kon maanaam yonent bi nee na nit ku eh, eh, maanaam jaaxle nga fa jaaxle kon loolu muy muy loo xamante ay tiyaaba yu rëy la kon ki nga xam dafa yore bor fay jot amul lu fay nga fexe ba fayal ko borom loolu bokk na ci nga nga jël ci azaka ji fayal ko borom loolu bokk na ci nga xam ñoo yeewoo azaka bokk na ci ñi yeewoo azaka maanaam lépp loo xam utilité publique waaw lépp loo xam ni utilité publique la maanaam même kuy jàng tax njàng ma xañ ko wuti kooku sax dafa bokk ci ñi nga xam ni dañuy liggéey fi sabilillah kooku na azaka donc képp ak lépp loo xam ne rek bien public la maanaam tabax hôpital bu ñëpp di fajoo ubbi école bu xale yi di jàng yooyu yëpp ma a nekk fi sabilillah waaw wa bini sabil ki nga xam ni doxandéem la dafa jóge ci àll ba ñëw ñu wax émigré gis nga lislaam ni mu teddee ñu wute nag lool wute nag lool maanaam yeneen société yi yeneen société yi dañuy néewal doole immigré di ko toroxal lislaam ni nañu wut lu ñuy toppatoo immigré yi nga xam ni ñu jóge ci seenu réew ñëpp ci réew mi te tuumuranke te dañoo yor alal ci seen réew nañ leen taxaw ba ñu sonn kon gis nga asaka muy loo xamante ni ñun ko ko séddale ñëpp ñu ko yeyoo la kon asaka muy maanaam jaamu yàlla boo xamante ni jaamu yàlla bu mag la euh, ta damay wax ni gis nga bokk na ci sabab yi lakk marché yi ñàkk fonk azaka parce que azaka am na ñoo xam ni dañ koy génn ni mu leen moo tax gis nga commerçant dëgg dafa war a jàng commerce dëgg bu njëkk ba mag ñi daan def commerce bi daan jàng foo leen fekk seen bitik ñu ngi leen maanaam téere fekk man jëkk ba mag ñi daan def commerce dañ daan jàng ba ni al xam fi ko dégg parce que commerce yoon ci bi nee na nee na commerçant bu dëgg moo yonent yi ñooy dekki ëllëg lu tax parce que commerce jug ci dafa jafe parce que bari na yu sew sewaan yoo xamante ni yonent bi la ko tere def ko ci commerce am comme waat waat ci waat ci njaay marché bi boo jëlee dañuy waat rek koo ñëw di ko jënd ak moom billaahi li laa ko jënd te dafa xaram te ay détails yoo xam ne war a xam na ixtikaar maanaam fekk marchandise marchandise moo xam ne yaakaar nga ni prix bi dina yokk nga téye marchandise bi pour am ci prix boobu dafa xaram te nit ñi dañ koy def yaakaar ni lu dagal la yu ci bari yu ñëpp mën nañ sama sax marché yi la kon lii ñuy def ne nit ñi xam ni yéen a ko moom surtout yéen ñi nga xam ni yàlla def na ngeen yor seen alal war a génne asaka kon ñu ngi ci woo képp koo xam ne rek maanaam yow euh, yàlla dogal na yëpp nga ni am nga loo xam ni mën nga cee génne asaka kon ñu bàyyi xel euh, ni maanaam euh, asaka dafa nekk loo xamante ni lu am solo la gis nga li ma wax sànq ni fuqaha yi ñoo doon commerce Muhammad ibnu Sirin maanaam ci fuqaha al kibaar na taabii maanaam faqih bu mag la woon kilifa bu mag la woon mais da daan dem ci jàkka ji di jàngale mais di dem boutique di jaay pour wane ni commerçant yi ñoo doon gën a ragal yàlla soo koy seet Muhammad ibn Sirin benn histoire ci moom dafa musa dem lépp xaalis jënd diwlin du mu jëndee diwlin euh, dugal ko ci magasin bi xëy suba fekk benn butéel benn mànd ci diwlin yi am benn jënax bu ci dee bu ne ah ñaara mën a am jënax bii fa ma ko jëndee na ci dee bu fekkee noonu la demee julli jëpp baaxatu wala benn mbànd bii rek moo am jinax kon jinax bi fi mu fi duggee kon mbànd ci lu baax c'est que lu ci leer du ma jaay julli ji di gàddu ak voilà mu ni julli ji du ma ko jaay mukk di gàddu àq ndax xawma lu ma ci leer dem tuur julli ji dese bor bi ka mu amee loon bor bi xëy benn bis ñëw ni ko sama fay ma mun ko wax nettali ko histoire da ko déedéet loolu leeru ma daal di ko yóbbu tribunal porté ko plainte ñu jugé ko tëj ko maanaam loolu da lay ñu lañ doon ma lay wax nii kilifa la boo xam ne tey jii boo ko doon bànneexee Nous suñu kilifa diine lay ci ñu dem ko garde garde pénitentiaire bi ko doon garde ni ko man de kersa di garde nitu gu dama bëgg nga may ma bu guddeetee ma tijji nga dem fanaan sa kër bu bët setee nga ñëw loolu day mooy mën a daal sama xel mën ne ko da nga bëgg ma dimbali la ci mooy yàlla déedéet ndax lii su la ci dimbalee da nga wor te man du ma dimbali coor bàyyi ba ma toog Anas ibnu Malik bi muy bi muy sukuraat mu ni Muhammad ibnu Sirin daal moom rek naa wóolu ni fu ma faatoo na ma jullee na ma sang na ma sàng na ma jullee na ma dugal ci bàmmeel Anas ibnu Maalik ku mu wóolu ba jox la boppam xam nga bu njëkk ba mat na nit ñi dañ daan dénkaane seen ginnaaw léegi nag dañu ragal dee ba duñ mais nit ñi dañ daan xool ko wóolu na ma sang na ma léegi imaam yi sax dañoo ragal sang foofu moo ci waaw yàlla ñu yàlla ci li xew ci jamono ji xol yi dafa duufa adduna ba talatuñu àllaaxira yàlla ñu ci yàlla musal Euh, maanaam euh, bi mu bi ima euh, Anas ibnu Maalik dénkaane nañ ko na ko sànq te mi ngi ci kaso bi ah ñu ne ah doy na waar de bi bi mu fàttoo ñu ne ah mu wax ne na ko jullee de ma nga ci kaso ñu ni kon na procureur joxe autorisation ñu génne ko mu ñëw defal ko loolu parce que Anas du n'importe qui ñu joxe autorisation procureur ñu ko demal joxe bindal lettre pour ñu permettre ko mu génn day julli mu dem bi mu demee ñu ñëw ni ko nee nañ Anas ibnu Malik yow la dénkaanoon pour nga toppatoo ko procureur nee na nga génn mu ni déet procureur tëju ma fi procureur ki ma porté moom fi tëj mais moom moom dafa exécuté ko rek na laaj kooku ndax d'accord na ma génnam déet ñu dem ci waa ji ni ko ah kii day Anas ibnu Malik daal dénkoo ne woon pour mu jullee ko ñu bëgg nga may ko pour mu jullee ji ko mun d'accord naa ñu dem ni ko nee na may na la nga dem jullee ji gis nga xam nga lu mu def mu ne nañ ko jaarale ci yoon woo xam ne du du romb këram du gis njabootam ndax ruus na xool jabaram wala mu xool doomam bi ci bànneexu di toll wàcc allahu akbar xool bi commerçant bi commerçant xam na li muy def kii du jaay ba lekk ak ku waaw noonu la dem jullee Anas ibnu Malik dellu këram ba léegi gisul njabootam waaw bu doon ñun ñi nag di nga jaar sa kër kon loolu nga xam ni commerçant da daan ragal yàlla lu tax parce que da daan jàng bi xam ni yàlla laaj ci njaay xam ni yàlla araamal ak li yàlla daganal ak li dagan ci njaaw ak ci njaay ak li jaar kon ñu xam ni lii ñuy def ñu ngi ciy woo ñëpp bu ko defee délégation bi ñu àndal Moustapha Kay docteur Moustapha Kay ngeen xam moo am yitte ci taxawaay ci mbir di coordonnateur euh, imam Omar Diop di seen mbokk commerçant fii ci marché bi imam Babacar Sy nekk imam ratib fële ca juma HLM Thiali imam Ibrahima Diop moom it nekk ci Madina Fall imam Omar Seck moom it mi ngi fii ci marché bi Serigne bay salaam Sall moom it bokk na ci delegation bi alxajja aram Seck muy soxna su am yitte am taxawaay ci lépp luy mbirum lislaam loo ko woo ci mbirum lislaam rek euh, di nga ko ca fekk mu taxaw ci taxawaay bu rafet alxajja Sooda Mariam Fall moom it ñëw pour jàpp ci liggéey bi parce que dañ ni mbir mi mbirum lislaam la mbirum jullit yépp la waaw góor dina génne azaka jigéen day génne azaka kon euh, ñoom ñëpp la concerné euh, ba tey maanaam alxaaji Ndey Njaay alxaaja Ndey Njaay kon soxna Ndey jaay moom it bokk na ci délégation yi nga xam ni jigéen ñi ñoo taaral euh, Serigne Thierno Siis moom it nga xam ni moom moo nekk ngeen fii ci marché bi yor nekk président maanaam marché bi moom it bokk na ci li nga xam ne délégation bi ñëw parce que euh, euh, maanaam booy dugg ci kër nag da ngay déggoo borom kër gi c'est que moom moo yilif marché bi moo tax bi ñuy dugg ci marché bi waxtaan nañu ak moom ba ànd ak moom moo tax moo ñëw bokk ci délégation bi kon ñii ñoo ñi nga xam ni ñoo fi ñëw pour yëgal leen kër azaka yi nga xam ni Serigne Mountakha moo ko initié tabax ko ci Touba ba mu commencé fonctionner gis nga fi mu nekk nii man demoon naa Euh, imaaraat ñu yóbboon fa imam yi pour ñu xool ñoom li ñuy doxalee li ñuy wax waqf ak azaka mais foofu ñaari yooyu réglé nañ fa problème mu ñàkk maanaam doo gis ku yalwaan te lan moo ko dindi mooy azaka ak waqf maanaam waqf ba dañ koo organiser noo xam ne tey jii jàkka bu nekk marché bu nekk supermarché bu nekk banque bu nekk am na boîte bu fa nekk soo yoree sa wecc rek da ko ca tàbbal dem boo ñëwee ci marché bi jënd ba sa tàbbal ci dem maanaam alal jooju nag dañ koy investir li muy jub képp ku am soxla ci dëkk bi am ordonnance wala nga am problème dépense am na agence boo xam foofu ngay bindoo wax sa soxla ñoom am nañu mooy ñuy vérifier ba nga xam ni arnaqueur yi dañ leen mën a xam ne bu ñu wóoree ni affaire bi ci secret lañ koy xool bu wóor ni li nga wax dëgg la da ngay jikki-jikki rek sa portable ñu envoyé la xaalis nga faj si soxla ci sutura kon yooyu muy moyen yoo xam ne yàlla teg na ko ci suñu loxo ci ay instrument mais ñun jullit yi gis nga am na benn simulation bu ñu def ci azaka ci benn dëkk ci dëkk jullit yi benn dëkk ci dëkk jullit yi ñu tànn benn borom al al bi ñu jëlee xayma alalam ba génn azaka ji ñu ne azaka ji waajooju mën na financé maanaam quarante mille projet yoo xam ne benn bu ci nekk mën na ci def cinq millions te azakaam du jeex azaka ji la waxuma alalam de maanaam azakaam bu ko génnee mën na financé quarante mille projet déglu leen baax quarante mille projet projet bu nekk à l'auteur de cinq millions ci azaka waa sëñ bi kooku rek réglé woon na problème jullit yi ndax kooku tey bu ñëwoon Sénégal ni te eh, eh, ren jii Sénégal lay aye dinaa fi dinaa fi financé quarante mille projet mais quarante mille projets développé le Sénégal ah, nga de beneen yoon nga dem ci beneen dëkk beneen te kooku benn borom alal la ci benn dëkk kon dama yaakaar ni coono yi nekk jullit yi nekk ñoo ko teg seen bopp bokk na ci yet bañ a farataal azaka bañ a taxawu azak te it ñiy génne azak yenn saa yi ah bi leen ko bàyyeeg seen bopp dañ koy génne lu ko lu leen neex parce que azaka boo koy génne benn ci euh, ci prix de vente bi nga koy génne mais doo ko génne ci prix d'achat bi loolu it muy sew-sew boo xamante ni gaa ñi xamuñu ko parce que yow génne ko ci prix de vente bi moo la arrangé sax tax ñàkk xam moo ko waral parce que azaka soo ko génnee ci prix d'achat lan lay indi tey ji boo nee man li ma ko jënde woon laa koy ci laa koy natte nga jënd marchandise mi prix bi wàcc nga war koo génne ci prix bi nga ko jënde woon di nga di nga yàq da ngay perte kon l'islam li mu lay sant sax mooy sa mooy sa avantage léegi soo ko dee génne ci prix de vente bi nag boo ko jënde woon 1000 prix bi wàcc ba 500 500 ngay calculer kon loolu sa avantage moo tax azaka dafa war a tegu ci kaw xam-xam mais suñu bàyyee nit ñi ñu koy génne mu leen neexam tax azaka ak ko yàlla la moo tax képp ku ko génnewul maanaam min boo ko tardeel mi ngi yàq sa alal maanaam azaka joo génnewul ci biir alal posan la ci ni ngi mel ni nga lekk posan ni muy yàqe sa biir noonu la azaka joo bàyyi ci sa biir alal noonu lay yàqe sa alal loolu nag yaakaar naa boroom alal ju ko xam yow di nga yàpp ni ku ñëw di organiser azaka yow lay dimbali kon war nga cee dugal sa loxo te nag dafa am boo tax boo gisee nag man leen na ngeen ci ñëw bokk mooy dafa am ay ñu ko doon jéem am naa sax mën naa am ñu ko fii di jéem pour taxawal lii bi ñu koy jéem pour taxawal woo ñëpp woo boroom alal yi ñi nga xam ne yaakaar nañ dinañ génne azak mais la leen ñooñu tontu dafa am solo dañ leen ni leen ko jox yéen imaam yi wala yéen sëriñ daara yi ngeen di ko lekk xaalis bi moom ñoo koy denc mooy nga gis ni kon ñàkk wóolu ko aussi dafa am ci biir léegi nag sa mais bokkal waaw di xam alal jëf muy dugg fi ñu koy jëlee ak fa muy jaar moo tax ñuy ñaan kon ñi nga xamante ni xëy na ñàkk wóolu Sénégal moo dem noo xam ne kenn wóolatul kenn ndax li tax kenn wóolatul kenn mooy benn waaye dafa ñëw ci sëriñam sëriñ bi ni ko dama bëgg defar sama jàkka ji karole ko war bu jotee nga bàyyi sama jàkka ji mu ni ko waaw man de sëñ bi mën naa ko karole léegi jox ma dëri bi ma karole ko waa ji ni sëriñ bi euh, sëriñ bi ni ko jox ma xaalis bi rek segam yow am nga xaalis nga koy joxe te da koy jox ngir yàlla jox ma ko rek loo ci xa loo ci jël dëri di ko defal sa bopp mu ne ko déedéet du ma la ko jox ma koy takkee jabar waaw wala nga ci nga tey karole si kër ndax man li la ko bëgg a jox sama kër amul karo mais bëgg a defal yàlla tax ma koy def kon su nit demee ba wóolutul sëriñam kon keneen waxu na moo tax wóolu di ko nag wóolu dafa jafe lool ci ñaan parce que jub moo jafe kon nag ñu ñu ngi jéglu waxtu yu jot na ah lépp lu ñu fi wax lu jub ñu xam ci mbaaxu borom bi subhaanahu wa taala pour néew xam-xam nag ndax ñëw ñu fi pour waaraate dañu yëgle rek ndax boroom xam-xam rek a fi topp kon dañ doon yégle kon ñoo ci bokk yam li leen yëgal ñu loolu ñun ñëpp ñoo ko bokk képp koo xam ne bëgg nga jàpp ci liggéey kon ñu ngi lay wax marhaban yàlla yàlla defal jéego toog asalaamaaleykum wa rahmatullah